mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gërëm leen ci ànd bekk ñun ci seen télévision DTV ñu tàmbali xabaaru marax yi jëm ci la xew ci réewum Gambie jàpp leen fi ñu toll ñu tembe kon ñu ngi xaarandi élection présidentielle waxtu yu néew mu des ci wàllu mel muy doon jongante yoo xamante ne bii daañ ci ànd ak gan gan gi di Frédérick Tendeng dañ ñëw léegi incha allah ci biir xabaar yi bala ñuy tàgg waxtaan ak moom ci wàllu gu yaatu waaye maa ngi koy wax sànq ci boppi xibaar yi mbirum Njaga Juuf Caw la jeexagul la ko indi mooy atte ba ëllëg benn fan décembre bi la baxta war a taxaw ci kanam waate kaay baxta nag nee na am na lu leer ci ay éléments sonore ni Abdoulaye Wade moomee moo yabal ñi song si woon meereem booy wala xew-xew moom itam gis na ni atte du mën am ëllëg bu fekkente ni moom Abdoulaye Wade moomee taxawul ci kanamu attekaay bi soxna Abi Gaye Barthélemy Diaz ne du bokk ci procès bu amul commanditaire bu ñu sukkandikoo ci jaraafu maire moo sacré kër gi maître Abdoulaye Wade daal nay xam ne nervi yu songoon commune am ci sécurité parti démocratique sénégalais la ñu bokk. ñu ñu doon jàpp ci ñaawteef bi. Moi, ñu santaanee ñawte bi mooy ñu ko commandité ak ñu ko financé tay tey euh, ku ànd ak baxte ak ku àndul ak baxte nga nangu ni que am na commanditaire parce que kii di président Abdoulaye Wade ci jamono yoyu tay mu nek secrétaire général du PDS nangu na ne mom xalé yi nga xam ñoo fi ñëw pour def ñawte pour moom nee na ñooñu dañu bokkoon ci PDS ci mbirum sécurité. moom meeru Mermoz Sacré-Cœur gi nag ci beneen wàll ga di xamle ne benn crime dong la def mooy kàddu yi mu yëkkati ne parti socialiste dina am candidat ci jongante yi ñu dëgmal. lu ñu bëgg mooy parti socialiste ñu mën ko noot ndax ñu mën jàppale kii di président Macky Sall duñ ko am ci ñun. luñu bëgg mooy Barthélémy Dias torox dama ne suñu gisee yàlla wala ñu gis rakku yàlla ñu yee parce que Barthélémy Dias du torox tey du torox ëllëg gannaaw ba muy amal janoo ak taskatu xabaar yi ci àllarba bi Barthélémy Dias di ñaax direction bu PS ngir ñu xoolaat kàddu yi ñuy yëkkati moom Barthélémy Dias di ñaax tamit njiitu réew mi ngir mu génne loxoom ci ay problème yu parti socialiste jaajëf soxna abi gay bu fekkente ni baxtaa ngi xaar jàkkaarloog attekay bi ëllëg incha allah PS ñoom nee ñu bëgg na ni yoon def liggéeyam nu mu gën a leere lu ni mel ka yor seen kàddu moo ko xamle Abdoulaye wilan nee na daal la ñuy xaar mooy yoon def liggéeyam Sénégal yëpp mën a xam Ndiaga Diouf moomee nu mu faatu ak lan moo ko faat ñu teewlu kàddu Abdoulaye wilan la mu dénk Mamadou Diop. Barthélémy Dias moo doon sàkku ñu leeral bir mi sàkku na ba ñaan ñi dindi laayam léegi na su yegg ca wax ja mu li jar ñaan yàlla daal laal mooy na na am te atte bi tegu ci dëgg bu ñu salfaañe ak wala yelleef wala sañ kenn ndax bu lu mel nii amee tuuma jib ñu ne faat nañu nit ñii njorte ne diwoo ko faat am nañu njorte ne faatu ko kon nag kenn ku ne dañ la war a sàmmal sa ak sa yelleef ak sa sañ-sañ bu boobaa nag bu yoon attee ba cambar ku mu ne yow lii la lañ baxa na nekk benn daan Eh, loolu ñëpp ku ci xam ne nga état de droit boo bu yoon addo ba ne firnde yii ci lañ sukkandiku daan diw mii bu la neexee bu la naxadee foofu la mbax ne nekkee benn te demoon nga fa da nga koy nangu rek waaw bu boobaa ñi ko war a contester ak fa ko war a contester ñu contester ko ndax appel danay am lu tax cour d'appel am waaye nag eh, damay dem ci làmb ja bëgg a bëre waaye buñ ma daanee ma ne du nangu wala bu ma arbitre bi wax ne dañ maa daan ma ma ma ma ma dóor ko kurbañ kooku day toj làmb te toj làmb nag baaxul ci réew. daañu ñëwaat ci beneen wàll jëm ci wàllum politique dialogue bi président Macky Sall woo opposition Sénégal bi waaye balay boobu jàpp leen ni jàngoroy euh, Sida mi ngi lëmbee àdduna bi ëllëg incha allah mooy bëccëg bi ñu ko jagleel xeex wàppi Sida bi. lu ni mel tax na OMS bànqaas bi ñu dénk fajagu ci àdduna bi nee na jàngoro ji ba léegi mi ngi fi naam xeex yi tar na lool ndax téeméer boo jël daanaka ñeent fukk ba am nañu jàngoro Sida ci xamuñu ko ñu ngi dund ak moom lu ni mel tax na kon fagaru jot na ci wàll googee Ndeye Fatim Lo juróom ñaar fukk juróom ñetti doomu aadama ci àdduna wërgël këpp am nañ feebar bii di sida fanweeri million juróomi nit feebar bi faat na leen ci atum 2015 lu ëpp ñeenti million gu nit gis nañ ni am nañu feebar bi le am na ay jéego yu am solo loolu yuñ def ci Afrique jëm ci wàllum xeex li di sida li mu ñi ko am wàññiku na loolu Afrique australe ak Afrique centrale ñoo am taux d'infection yu gën mag Afrique de l'Ouest Afrique du Centre taux d'infection est bëriwuñu ñoonu parce que population a fait des effort pour limiter l'infection. Nous avons ñu gën a mën Dissida, xeex a bi en Sida en 90 2030 réew en Afrique saoudienne, jant ak centre bi fas yéene nañ en ci atum 2017 Ben plan d'urgence. avez amul taux d'infection li nga xam ne dafa rëy kon nit ñi dañ lay xaw a fàtte. ce qu'il lu muy def que même taux d'infection bëriwul nonu, dañu wara ñew di accompagner région yi Afrique de l'Ouest li nga xamné dañu am 25 pays ñu baña nek en arrière par rapport à cela. waykat yi mu melni ni mal Maal ak ñen ñu mel noonu dinañ duggal seen loxo ci xex gi dinañ jëfëndiko seen baat ngir gëna ñaax askan wi. man personnellement dafa am ben way bo xamné bi composer nako mais dama ko bëgg jox la jeune génération parce que ñom itam seen jamono la. ñun en euh, euh afongalu ko cellal mais boo koy tekk ci wolof mooy booy wax ni yow tu es riche sa première richesse santé la. ren ji bés bu ñu jagleel xeex lii di feebar bi di Sida dañ ko jëmale ci wàllum fagaru thème bi mooy hands up for HIV prevention maanaam yëkkati leen seen loxo ngir ñu fagaru ci feebar bi di Sida ONU Sida di ñaan nit ku nekk mu def ab vidéo boo xam ne fanweeru seconde la wala benn photo mu bind ci loxoom li nga xam ne moom la bëgg ñu dolli ko ngir gën a dëgëral fagaru bi ñuy def jëm ci wàllum xeex jàngoroy Sida. mang koy wax sang ci boppi xibaar yi politique ci biir Sénégal ndax xam ak dal dafa nara am ginnaw bu ku gi sako won waxtan diggante mu njiitum réew mi ci Macky Sall wolu len war ko def al khamis inshallah jangat dina am ci walu guni mel ñoom ñu séq politique bi waye balay bobu askanu Sénégal ñoom seen kaddu jibna ci walu googee ñen gis nañ ni dialogue bi bu fekkee dëgg moko lal dina bax waye yenn say yi xëy day mel kenn du xam ku gi ak pouvoir la moy seen bëgg bëggum kenn ko lay xit ci borom di Sam intérêt bopam boppam Bonardi dialogue bi nga xamanteni tambali tàmbali woon nañ ko ci 28 mai bi passé ci palais de la république dinañ ko wëyal jeudi bi mo nar dox diganté état bi ak opposition bi nga xamanteni dañu mànqaliko ci manko wattu Sénégal muy ab dial gu teux buñu sukkandikoo ci gis-gisu ñu bëri ndax yexna na trop balaa ñu koy am ñu bëri japp nañ nak que ni amna yu gën am solo li ni mel na am sax weccoo xalaat bok na ci li nga xamanteni mo moy mooy wëyal réew non dialogue bi je ne pense pas mu aboutir quoi parce que loolu yàgg na fi am à chaque fois les mêmes choses yooyu répété loolu ñuy wax dialogue dañoo war a xool lu avancé loolu réew mi quoi dialogue bi pour pour positionnement kese la rek moo leen tax a jóg quoi. ndax opposition bi ñoom seen bopp dañoo àndu tey bu ñu ni woon kaay leen ngeen séddoo nga gis xeex bi dikk. Idrissa Seck Malick Gakou Ousmane Sonko Pape Diop ñoom ñoo ñee lu ñu jàkkaarloo ak ki nga xamante ni moom mooy président Macky Sall muy ab taxawin boo xamante ni ñu bëri ci ñi yeewoo ci dëkk bi jàpp nañu ni warul ndax dafa nekkoon occasion boo xamante ni dañ ko waroon tey ak seen fukki loxo ngir wane ne politique war nañ ko mën a amalee ci jàmm ba tax sax ñu bëri di ngàññ ñi ci yëngu ndax si seen gis-gis dafa tilim torop man nag d'accord ma si boobu ñu jël dama parce que jiitu réew moo leen woo suñu demee toog xëy na lu leen naqari woon mën na am ñu trouver solution jour boobu. politique léegi nu ko gars yi gisee damay ñëw comme oto bu boo xam ne la oto bu paan dañ ko war a pousse su tàkkee rek bàyyi na si ginnaaw or ko du noonu politique noble yi ñoo ko war def nit ki da nga war a jóg pour jëriñ sa sa dëkk surtout Sénégal mais pas pour xalaat dëkk bi jëriñ la. moom rafetul moom ndax ku nekk yaa ngi xool ñaaw loo wax nit wala nañu gouverner xam ne dañ leen fi teg pour ñu liggéeyal ñu may leen ñu wàcc leen ñu liggéey ndax fi mu nekk nii kenn sonnatul suñu carte lañu yore ku ñu fi neexul ñu jëlee ko. coalition wattu Sénégal wane na taxawinam ci li nga xamante ni moo jëm ci processus électoral yi carte biométrique yi ministre de l'intérieur ak yeneen ci ay jafe-jafe yoo xamante ni jàpp nañu ni nguur gi taxaw ci ni mu waree. jaajëf Adja Bonardi ñu laf laaj ci politique dugg ci mbirum armée bu Sénégal jàppale ni kon am nan chef d'état-major bu bees kooke mooy général Cheikh Guèye moo fa wuutu général Mamadou Sow moo fa nekkoon ca dem léegi ci mel nag moom kenn ku ne wane na xarañaa ci liggéey Mamadou Sow moomee ministre bi dénk wàllum takk der yi moom ci boppam daal dina koy sargal liggéey bi mu taxee woon waaye itam kii fi ñëw yees général Cheikh Guèye moom tamit ku naw ci ab liggéeyam lii moo tax mu am bilib ndomba tànk dañ ci xuus ak jibi saax joni général Mamadou Sow demna à la retraite ginnaw bi mu défé lu ëpp fanweeri at ci l'armée bu Sénégal té nak ñi yëngatu ci walu l'armée bi yépp gis nañ leen ci cérémonie bi ñu ko jagleeloon ngir sargal ko mu ñëwone présider li di ndaje mi di ministre bi ñu dénk l'armée bu Sénégal ñëwaat na ci jaar-jaaru ki di général Mamadou Sow. defna ligéy bu am solo ci ñeenti at yi passé 2012 ba président bi mu jëlé donc nguur gi dafa ni lima bëgg moy armée bi monter en puissance mu dénk ko général Sow dégg ngeen cursusam jóge ENSOA nekk fa major dem ENOA def fa liggéey bu am solo. ñu tabboon ko niki fukki fan ak ñeent ci weeru novembre ci atum 2012 chef d'état-major des armées sénégalaises moom général bile mu ngi xam ne retraitam bi lu mu mérité la. après 39 ans comme ni ngeen ko gisee fi ne nii dañuy am repos boo xam te ne dañ ko mérité. te ñu ngi am yaakaar amaat chance dund li ñu mel. ci jamono joo xamante ne ni réew bu Sénégal bëri na lool ay jaxasoo ak i pëccëxoo yu ñu fi seetlu moom général bi génn jàpp na ne ñi ko nar a wuutu dinañu def liggéey bi ñu leen di xaarandi. le défi. défi yi dafa melni xalé buy mag te armée ap institution bu mag la te tay gis nañ ni jamono nu mu tëddee faw rek ñu fexé nañu mëna a askan wi waaye nak dëppale ko ak li nga mo xew ci jamono di xaralé wéssi ndax gis ni xétu banditisme yi dafa yokk te niñu koy fësalee jamono ji dafa war mëna tax ba ñun ñi ci liggéey ñu fexé di ak jamono ngir mëna a askan wi. défi on ne peut pas les résoudre une fois pour toutes. kii di général Mamadou Sow nag dina jël retraitam ni ki 31 décembre bi ñu jëm ki koy wutu moom mooy général Cheikh Guèye

maa ngi lay fay Modou. yaa ngi Sénégal ay at booba léegi nga jóge ci réewum Gambie mais du tey yaa ngi bàyyi xel xew ci réewum Gambie nga doon ko xamit tamit Yaya Jammeh élection yi tey waxtu yu néew moo ci des boo doon jàngat doxalinu élection yi ba campagne bi tàmbalee léegi ak façon bi nu war a voté bi euh, jàngat boo ci am. maa ngi nuyu télé téléspectateurs yu DTV yi euh, jàngat bi euh, jafewul gis que soo xoolee Gambie bi campagne bi doore mbir mi dafa mel ni nivelewul parce que d' abord balaa ñu wax campagne. Mhm. am na ay préalable muy code électoral bi maanaam charte yoo xam ne yooyu la ñu lool pour élection bi jaar ci yoon. Mhm. président ba moo toog boppam defal ko boppam boolewu ci kenn ci partie opposition yi. Euh, jéemoon nañ naxante ak moom comme ñu mel ni waa Union européenne pour gars yi def benn plateforme interparti. Mhm. waaye dernière minute dafa daal di fàq bunt bi ne moom daal bokkatu ci. donc euh, mu doon euh, processus boo xam ne daal équilibré wul. ñu taxi, si ci campagne bi da ngay gis ne armée police police immigration euh, agent secret ak yëpp dañuy sol ay yére campagne la Yaya Jammeh. nekk civil. nekk civil non non dañuy sol yére carrément dañuy sol seen tenue sol pantalon tenue mm. sol t-shirt Yaya Jammeh campagnal ko donc xam nga boobu campagne tam xaw na doy waaru ñu jékki-jékki dem ba ci biir ñu xamal nit ñi ne euh, commissariat de police yi ak euh, garnison armée yi ak caserne yi ak yooyu mm-hmm. dañ koy ñëw def muy ay bureau de vote donc mu doon affaire boo xam ne xaw na tey xel nit ñi. xam nga amna par exemple kérok bu ñu def dépôt candidature yi kenn ben avocat ñu koy ne Henry Diouf. mu yebalon mandataire am pour déposer dossier am koku dañ ko fa keuf ci bir commission électorale bi dal di koy denc ba tax na moom jotul tek dossier am donc yii yëpp di ay mbir yo xam ne ñu ngi biir si campagne bi. donte opposition bi nak pour la première fois. ñoo nañ dajalo am ben candidat unique nga xam ne mooy Adama Barrow euh, lolu muy gulet. parce que yàgg nañu di koy essayer mënul dox. Mhm. ba bii yoon daal am na ñoom am nañu yaakaar bu mag euh, ci wetu. ñooñu itam am na koo xam ne ñu ngi koy duppee Mama Kandé mhm. kooku ci parti Yaya Jammeh la bokkoon daal di génn taxal moom it candidature am mu ngi ci waaye opposition tax na bi yoon daal ñoom am na ñu yaakaar ne donte jafe-jafe ak yëpp am na daal ñoom am nañ ci yaakaar bu baax a baax. daañu ñëwaat ci mbirum opposition beeg jàkkaarloo ak Yaya Jammeh mais ci doxalinu élection gi ndax gis nañ ci xibaar ni Yaya dafa indi doxalin gu bees mooy du ay carte mooy wote mais ay bii maanaam ay bul ngay tëmbal ci urne bi jamono fi mu toll tey ci wàllum euh, doxalin technologie adduna bi ak wàllum démocratie euh, loolu loo ci am comme gis-gis ni xëy na moo ne ci biir. loolu yàgg na fa nag tubaab bi moo ko indiwoon ca jamonoy colon. ñoom dañ ko defoon pour xalaat ne comme euh, xëy na ñu bëri jànguñu woon. dañu jël ay bii. ñu jël photo koo xam ne mooy candidat bi taf ko ci euh, euh, ñoom dañ koy wax drone mel ni bërigo bu ndaw. Mhm. ñu def photo kooku foofu bu ko defee léegi yow da ngay jël per bi boo ñëwee rek sànni ci biir euh, bërigo bi. Mhm. bu ko defee rek ñuy sotti bërigo bi rek daal di compter kenn ko dépassé. Mhm. di dox ñu faat bakkanam. téye faat bakkanam loolu lañ doon laaj pour yooyu per yi nga xam ne observateurs yi dañu mën teew di fekkee. loolu kan la arrangé wote façon boobu. Jame la arrangé yo yaa ngi xalaat ñu wara def élection ci bir Gambie bu toll ni Gambie te bokk ci CEDEAO CEDEAO du bokk ci élection bi bokku ci ci ñuy observer élection bi. dañ ñëw dernière minute président commission électorale bi ne CEDEAO dafa tardé. Hmm. di di def demande pour ñu wara superviser élection bi donc. fi mu toll nii euh, foofu lañ foofu foofu lañ toll daal. Ah. affaire daal Yaya Jammeh la gën a arrangé. fi mu toll mu doon doy waar mais Yaya Jammeh def na ci bopp réew mi ñaar fukki at ak ñaar boobaak léegi ñu koy tuumaal euh, crime maanaam faat ay opposants ak ñu ko neexul waa tamit ñàkk doxal démocratie loolu lépp boo ko boolee tey ndax dëgg-dëgg Yaya Jammeh am na ay chance ngir tegaat loxo ci bopp réew maanaam gañewaat élection yi tey ak opposition yi ñu jógee ak yi ne ko askan wi meree. mun nag wax dara. campagne bi. Mhm. gis nga armée bi dóor na nii. Mhm. wax naa la jalgati yoo xam ne def nañ ko ci biir code électoral bi. ak yëpp mhm. teewul Gambien yi dañu wàcc ci tali bi en masse. jàmme pour la première fois. moom toujours day xalaat ne coup d'état koy daane waaye pour la première fois jàpp na ne mën na daanu ci élection bi. ba tax na dem na di jëlee nit Casamance pour ñu votel ko andil na ay nit yu jógee Mauritanie pour ñu votel ko. ak yooyu yëpp mais gars yi dañu mobiliser wu ak doole doole moom xam na ne instant yi daal am na vraiment il est très très très en difficulté moom loolu waroon ko baax parce que Gambien dañu gis ne. même bu fekkee dafa war a jalgati affaire bi duñ ko ko yombalee maanaam ñoom ñu génn en masse ñu voté. Mhm. nga xam ne marge bu muy bu muy am pour manœuvre la lu bëre. léegi nag moom xam na loolu ba tax na jël na décision ma def la bi révélation mhm. ne probablement dafa woo dem trois opérateurs yi joxe internet. Mhm. ne ñu taxaw bàyyi bàyyi xel ne mën na nekk internet dañ koy coupé diggante jeudi ak dimanche. nee na ñi nga xam ne ñooy joxe courant ñu bàyyi xel. ñu bàyyi ko xel parce que am na conseil national de sécurité bu amee ay menaces de sécurité daf leen di jox ay te loolu ñi ko jegee ñu ngi ñuy xamal ne ñu dafa bëgg a joxee ordre ne nañu couper courant couper internet su ko defee Gambie moom rek des fa télévision nationale Gambie fu toll nii soo ko seetloo amatul signal satellite donc mu ngi bëgg a yemale mbir mi képp ci biir kon daal mi ngi bëgg a teg loxo ci lépp ci réew ma mais ci beneen mbir ngir jàng yaa ngi tudd sànq opposition bi guléet ñu taxaw tamit ñu ngi bëgg a léegi taxaw nañ sax fipp jàkkaarloog Yaya Jammeh dafa mel ne léegi Gambie opposition bi am na changement dëgër na këcc ngir jàkkaarloog gane ci bopp réew ma totalement parce que gis nga euh, répression maanaam duma yu mu doon duma waa opposition yi mhm. daf ko ci mois d'avril loolu parti bi ñuy wax UDP muy parti principal bi mhm. mom la concerné pratiquement amna na ñeneen ñu doon xalaat ne déedéet jarul ñu ci bokk ak yoy worul nangam sangam. Mm-hmm. waaye bi yoon bi parti yi demee ba d'accord def ben alliance ñëpp comprendre nañu melni éveil daal am mm-hmm. euh, population Gambie comprendre nañu ne fu mu toll fu mu toll kenn du dem sa morom des. ndax bu ñu weesoo élection bi comme mm-hmm. ñom alliance lañ def ñom ñëpp jambe suñu naree duma du duma kenn baye kenn justement bu ñu weesoo élection yi da ci bakku ñu jangat ëllëgu réewum gambie avenir gambie tay élection yi fi mu toll ak enjeu bi nooy jangati ëllëgu réewum gambie doyna war kilifa yoo xam ne mën na ñaan ak ñoo képp koo xam ne mën nga ko dox jàmm am euh, te loolu ma njort ne mooy ñu xamal yaay jàmme ne askan bi su décidé ne waru fa toog bu mu ko forcé parce que gis nga ci biiram moom ci boppam ci biir Gàmbi armée bi am na xaajaloo bi fa am yaa ngi am ki nga xam ne mooy chef d'état major muy wax ne moom jàmme la àndal mais ñi nekk ci garde présidentielle ñu ngi xamal ne ñoom constitution bi la ñuy défendre donc am na solo daal nit ñi bàyyi a baax ci lii xew Gàmbi ñu ñaan daal jàmm ak euh, décision bi nga xam ne population moom lay jël mu doon loo xam ne mooy ligën ci réew mi

lu 30 ci trente xale yu am way lago sen karkanam wala yu am ay lak lak yu metti ONG italienne bu tuddu Sorisi Emergency and check hôpital général de Grand Yoff dañ leen opéré leen te duñ ci fay dara lolé mi ngi tamali le 2 décembre. c'est des fentes rabiales loolu moy euh, tour bi gëna a siiw fente fente rabiale la bi conséquence bi ci tout, moi, moy dafa mel ni nit ñi dañ dañ ngay dañ ngay dañ ngay beddi beddi compté boobu nag moom aspect chirurgical bi dafay régler intégration sociale boobu donc ci loolu moo tax hôpital bi aussi ni comme euh, ay étrangers même bu dee mission humanitaire ñëw nañ pour jàppale ñu ñun tamit hôpital général bu Grand Yoff du ñu toog rek ne ñu ngi xaar ñu dimbali ñu am na loo xam ñun hôpital bi war nañ koo mën a defal malade yooyu parce que xëy na am na ñoo xam ne laal na leen laal na seen dëkkandoo wala laal na seen bopp te yëgaguñ ko. gannaaw bu ñu fajee malade yooyu ba noppi. ONG italienne bi mom tamit dina tagat médecin yu bëri fi ci Sénégal ci walu chirurgie ci walu pédiatrie ci walu radiologie ci walu anesthésie waye tamit infirmier yi ak technicien de maintenance yi. volet formation bi mo ci ëpp solo boy sét ci convention bi ñom ñoom euh, mission humanitaire bi inshallah buñu ñëwé ñu ñëwee dinañ waxtaan ak ñom pour xam concrètement bo formation yi côté médecin yi nan lañ koy dérouler côté paramédicaux yi aussi nan lañ koy dérouler pour nga xam ni ñun suñu équipe yi dinañ leen tagat ba nga xam ne ëllëg ak si biir bu mission bi mëna tuuga ñëw ñun ñu mëna a demal suñu bop hôpital général lu Grand Yoff mom tamit bàyyeewul yépp ONG italienne bi ndax hôpital bi mo jël en charge sen hospitalisation waye tamit sen aide au diagnostic. Louise Tina Sagna jaajëf leneen ci xibaar mi ngi jëm ci mbirum science fexe ba xam-xam yu xóot yooyee mën a law ci biir réew mi yokk koom Dakar mi ngi daloo ndaje mu ni mel a waxtaane waale luy fexe suqali kom koom ci biir réewum Sénégal gi li ni mel njiitu réewum Sénégal président moo ko sémb ay kàngam ñoo ko seeq ñu waxtaane wàllu gu ni mel Abdoulaye Ndiaye ma nga ca woon reportage lii mooy ñaareelu bésub édition bu njëkk bu école doctorale commune ñoom nag ñu jagleel ko màggal wàllum ndaje boo xamante ni nag ñoom ñii lay organisateurs yi daal nañ ci prox ndolo fësal njëriñ bi nga xamante ni gëstu xam-xam am na ko tax yenn ci ay mbëbët ñu daal di koy fësal. daje daje tey bi dafay daje boo xam ne école doctorale université Cheikh Anta Diop Dakar yëpp ñoom ñoo ko sumb euh, muy li ñuy wax doctorat ñu jël ci bésu tey bi tuddee ko euh, fête de la science. fête de la science nag euh, moom boo gisee ñu def ko dañu ci am rek ñetti objectif objectif bi njëkk mooy doctorat yi nga xam ne dañu bokku ci ay école doctorale yu bokkul ak ay thématiques yu différent ñu xamanté sen biir xam kenn ku ci nekk li ngay liggéey dalé ko ci mathématique ba ci physique appliquée yi chimie bi objectif bi ci tagu moy ubbé ko ci entreprise yi ndax xam nga né kuy préparer doctorat pour liggéey ëllëga tax gis ngeen postières yi ñu installé fi gis ngeen laboratoire gis ngeen thèse ñu soutenir pour que ñoom tamit ñu xam ko bi ci tagu moy ñu ñu jëmmal lenn ci gëstu yi nga xam ne ñu koy def ci université Anta Diop Dakar parce que dafay tamit université boo xam ne ay xam-xam yu bari jot nañu fi génn. gëstu nag jëm ci wàllum xam-xam mën nañ ko jàppe wagon bi nga xam te ni mooy teg saxaaru koom-koom bu xew bu Sénégal ci raay bi loolu nag ngir mu yemb faaw day laaj njàppandal gu am solo jëm ci ay jumtuwaay yu ñuy jëfandikoo ngir seen liggéey mën a mucc ayib. liggéey bi ma wax fii yëpp ambition bu rëy la te dañu xam ne dafa soxla laaj na moyen waaw moo tax tamit ñu ngi vraiment tàllal suñu loxo ci pouvoir public yi tamit ñu ñu bàyyi ñu bàyyi xel bu baax ñu ngi ci ga donte ñu ngi def effort waaye ñu gën a def effort encore pour relancer recherche bi ndax euh, ñu ngi ci eeru émergence te yaakaar nañu ne émergence mënul dem mukk te recherche scientifique pour nek à la pointe ñu ko développer. ndaji bi nak mën nañ ci nemmeeku teewaayub ndong yu bëri ci daara ju kawé ji ñu ci ëpp nak di nak ñu am lijaase bi di doctorat seen xam-xam nak liko ko gën a firndeel na ci jumtuwaay yi ngeen di gis ñom nak ñu daal di koy xalaat fësal ko ci ab exposition li lepp di firndeel ne tundu Afrique mën na suqaliku té du sukkandiku ci li bawo ci biti réew. jaajëf Abdoulaye ba beneen waxtaan bu ñuy xaar ëllëg ci alxames ji mooy waxtaan diggante ñenn ci ku jëkk politique gi maa ngi ko waru Sénégal ak njiitu réew Sénégal président Macky Sall ci alxames leen muy nag loo xamante ni bii xëy na mën naa jur ak ci réew mi ndax waxtaan mooy tax gindikoo mën a am ndax Wolof Njaay na réeroo amul ñàkk waxtaan moo am waaye nag dëgg-dëgg ndax opposition bi lii coow tàmbali jëm ci seen biir mën naa yàq dara wala de dañ ciy xuus ak Ibrahima Fall non war na ñoo mëna a déggoo parce que président xam na nu muy def ba élection leer yàgg na ci élection yàgg naa nekk ministre de l'intérieur nekk na fi directeur campagne Ablaye Wade bu bëggee élection yu leer mu leer élection yu leer lañ bëgg moom bu ko bëggee dana leer pour intérêt Sénégal et son image et l'image du Sénégal woot kujje gi ñu toog waxtaan ci li jëmle réew mi kanam man loolu laa gëm man loolu laa gëm te moom aussi mi nga xam ne mooy président de la République woote ko ñun ñi nekk ay ndawam ñun ñu nekk ci keppaaram membre du gouvernement ñun ñu koy ñaan aussi ci rencontre yooyu ñu jël ci loo xam ne mët dina mët sëkk ñu déggoo ci ay kàddu pour que Sénégal vraiment ñu mën a xooli leneen mu dem kanam. ndax ba ñu tàmbalee di daje te ministère de l' la amoon ay point yoo xam ne d' accord ñu ci yónnee ko ko moom waaye teewul ministre am bii nga xam ne ca départ ba lañ ni mënut nekk ministre des élections parce que moom il est partisan maire la APR la. te nag il est membre du bureau exécutif de de de la l'APR. président Léopold Sédar Senghor daan na woote waxtaan waxtaan ak baykat yi waxtaan ak sàmmkat yi waxtaan ak nappkat yi te ñun héritier de Senghor ñun dañuy rafetlu dialogue ba mu méttee ba metti ci diggante Abdou Diouf ak Ablaye Wade sax dañ daan toog di waxtaan kon nag tey dañoo war a toog waxtaan pencoo réew mi. ma nga doonee kon mbokk yi lii moo la laajtu xibaaru marax ci seen télévision DTV gërëm leen ci ànd beeg suñuy programme bu leen toxal seenum seetaan dana amaat xabaar léegi ci 20h ak Ajaratu Aram Touré ba lay boobu ñaan leen di ànd ak programme DTV illa liqa jaay jël number one. never never lose jaay jël number one. mu daan bul tay bul bay. xëccal mu daan bul tay bul bay. mbégte ak contenté di len dalal ci sen émission SOS santé euh, ku wax le er décembre wax ne moy bëss bi nga xamante aduna wërngal kep mom lañu ñu jagleel bi nga xamante modi Sida. situation Sida buñ koy xayma ci Sénégal buñ koy comparer ak yenen dëkk yi dañ nan Sida euh jéggiwul dayu pour le moment Sénégal. Euh, ci loolu ci say bir wax euh, xam la nga ni jigéen yi ñoo ci gëna am doomu jangoro Sida. Mm-hmm. lu ko waral. li waral loolu jigéen ci ni mu bindoo moo gën a yomb am sida góor euh, jigéen ci biologie am am na cycle yoo xam ne dafay gis mbaaxam buy gis mbaaxam dina am ay gaañu gaañu yu ndaw yoo xam ne virus bi day gën a yomb mu jàll ji. xam nga euh, bu fekkee ni jigéen euh, mënuloo dans ton couple négocier ba sa partenaire jël préservatif même bu fekkee ni wóoluwuloo ko. wala xam nga sax ni mi ngi dem feneen mënuloo ko imposer préservatif donc c'est du maa ngi wax leadership mais c'est une question de pouvoir fukk édition gamu annuel bu Tivaouane DTV ne du ci def si ginnaaw xibaar yi lay doon seen émission naka noonu ñuy amal ay plateau yoo xam ni dinañ dellu si waat jàngatu sayidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ak li ñu fi maudo bàyyi gamu annuelle annuel bu Tivaouane fii ci bërëbu Seydi El Hadj malik Sy DTV du ci des gannaaw la machine de la télé Kon na wuy ji jógu wuy ci maam aas am say ngërëm ku am kër gu mel nii ci réew doo gëlëm lu fi raw